d'industrialiser ce pays parce qu'on n'a jamais développé un pays sans industrie am nañu un programme social bu ngeen dul gis fenn mooy fexe ba généraliser le système de prévoyance sociale ba sénégalais bu ne moo xam menuisier bi mécanicien bi moo xam jànq bi liggéey ci biir kër gi moo xam chauffeur de taxi bi moo xam coxeur bi ñoom ñëpp mun a am une couverture sociale mun a am couverture maladie mun a am retraite comme tout le monde dañu ne état dafa am dafa soxla ay ressources war a def ay dépenses premier élément ci ressource état yi mooy li ñuy wax l'impôt fiscalité moo ëpp ci lu état mun a dajale loolu ci réewu àdduna bi yépp la su ñuy wax lémpo nag nit ñi dañ naan wuu waa ji su ñëwee moom ñépp lay taxé déedéet